dem côté euh, fi nga xam moom mooy Fass si rond boobu lañ nekk mais est-ce que dien la lii yëpp dañ ko xaaroon lii yëpp euh, xaaroon nañ ko lii yëpp xaaroon nañ ko gis ngeen ñu dund loolu en direct si ma bàyyi jarul commentaire dégg ngeen coow li dafa yoon leen ngeen si daan ko en direct non comment. dafa kooku dafay résister da ngeen yuuxu yi da ngeen ku jigéen fi da ngeen ku jigéen fi bon tëj nañu ko nee nañ ko yóbbu. ñoo ngi si kaw trottoir bi ñoo ngi si kaw trottoir bi ah. Seydou maa ngi nii. Ablaye Kaye Kaye Ablaye Kaye. vous avez vu ñu ngi brutaliser ñu ngi ñu ngi taxaw ci kaw ci kaw trottoir yi ñu ngi taxaw ci kaw trottoir yi ñu ngi brutaliser ay journalistes.